également jànn ak yéen chaque jour ngir li leen di gën a fës si bopp ma toogal Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Ndake baax a baax suñu mbokk internet yi nga yëpp nga xamante ne bi ñu ngi topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la am heure bu ñu toogee jàkkaarloo ak ñoom fas yéene leen a jukkil lu fës ci xibaaru làmb ji. asalaamaaleykum nuyu naa la. Ndeye maa ngi lay fay di nuyu internet Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ak ñoom. yëglekaayu làmb ji foofu lay jaaree lundi 8 février 2021 journal suñu làmb xëy jëxatam mu njëkk Moussa Ndour fils de Balla Gaye 1 ce qui entoure Balla Gaye 2 ne lui disent pas la vérité. lu ni Moussa Ndour moom mi moom nga xamante bii moom mooy doomu Balla Gaye 1 moom ñëw ci journal bi seet waxtaan bi yaatoo ak suñu làmb nee na Balla Gaye 2 entourage bi ko wër bi ñu ko wax dëgg la école de lutte Balla Gaye 2 bi ñuy sosu ci kanamam la lu bëri bëri fekkee na ko ci école de lutte bi asal grand format la ko sunu làmb jël Babacar ni nga ko waxee loolu la monsieur Ndour di doom ci Balla Gaye numéro di mag ci Youssou Ndour comme ni nga ko moom nag dikk na ci euh, information papaam ak la après bi papaam gaañoo wax na séq na ak waxtaan sunu làmb moom nag li nga xam ne mooy euh, nee na Balla ni ko séq duñ ko wax dëgg wax na également benn poulet papa musul euh, jël cinq cent mille jox ko paa bi ci bi muy dund nee na waroon nañu mën a jox ko jëndal ko ab benn parcelle sax au moins pour mu dëkk fa waaye loolu lépp poulet mi de joxu defuñ ko wax na également que papier écrit bi même instant ci loxoy Balla Gaye ndax nee na papaam avant muy génn àdduna la ko joxoon Balla Gaye ne ko géral moom nag léegi nee na Balla Gaye moo des ci écrit bi ci loxoom la nekk te moom moo ko war a doxal pour le moment Balla Gaye 2 mën nañ jox équipe bi na ci doxal bu baax a baax fan jëm nag mooy ci Gris Bordeaux sans victoire depuis 2015 confiné sur le banc de touche depuis 3 ans Gris Bordeaux guetté par 3 jeunes lourds. mais man de depuis depuis 2015 juróomi at. nga xamante ni bii moom mooy Tigre de Fass di Gris Bordeaux amul benn victoire ci làmb ji mais nag li ci gën a doy waar mooy xale yi ñu ngi fëgg ay ci jàpp ñett ñi xamante ne bii ay ñetti la nga xam ne fi mu toll nii mayuñu ko la ñu bëgg Assane. dëgg la Babacar Gris Bordeaux sans victoire depuis 2015 loolu la suñu làmb wax nee na euh, mu toog euh, depuis 2015 amul victoire mais également. tegale na ñetti saison yoo xam ne nii ay saison blanche lay def loolu tax nag journal suñu laaj bi ne am na trois jeunes lu yuy gete Gris Bordeaux trois jeunes lu yu mën nañ ci cité Sa Thiès Yékini Junior wala Malick Niang nee na Yékini Junior moom li ko yitteel ci Gris Bordeaux moom mooy jël revanche Antoine Bakhoum nee na Malick Niang moom bëgg na daane Gris Bordeaux pour rebondir te loolu la ñuy jëmee te champion MMA ba lañ jëm di Reug Reug Reug Reug pour achever Gouye Gui sur deux fronts. moom mi nga xamante euh, journal bi ci waxtaan bi yaatu ci digganteem ak Gouye euh, Gui nga xamante ne bii moom mooy roi du simpi nee na mayul dara Gouye Gui te it euh, incha allah lépp la ne bii war combat bi rek dina ko def Reug Reug ñi nga xamante ne bii mu ngi ci ñaari yoon mu ngi ci yoonu euh, MMA bi wante tamit mu ngi ci yoonu arène bi. wax nga dëgg Babacar euh, pour achever guy gi Reug Reug sur deux fronts loolu la ko journal suñu lamb waxee euh, xam nañ ko Reug Reug war a jaaf jàkkaarloo guy gi ci saison bii di ñëw war nañu daje léegi nag pour préparation combat boobu suñu làmb nee ne Reug mu ci deux fronts mu ngi ci MMA bi xam ngeen ko daa gagné na Pierre Alain Ngalani bu yàggul mu ngi war a jàkkaarloo brésilien bi tudd Marcus Marcus Almeida mais également ci MMA boobu Reug Reug mu ngi également ci lutte simple bi loolu suñu làmb wax nee na ñaari front yi yi daal loolu Reug Reug nekk pour daaneel guy gi bu ñuy bu ci noonu ba léegi coach principal de l'ANSAR depuis 2009 Alioune Diop décédé ce dimanche à 70 ans. Euh, moom ne bii moom moo jéem moom moo ko moom moo doon coach écurie Lansar depuis 2009 euh, moom moo génn àdduna ci dimanche bi ñu koy ñaanal baax baax suñu borom yërëm ko te jéggal ko mu nekk euh, nit ka nga xamante ne bii nag formé na mbër yu bëri foofu noonu ca ca tiis su journal suñu lamb xëy tàggee ñu ko muy desee Alioune Diop Alioune Diop nag na mi ngi décédé euh, à l'âge de 70 ans moom 59 la juddu hôpital Grand Yoff bu CTO noonu boobu foofu la décédé après benn euh, feebar bu ndaw bu ko tëral après bu ñu décédé nag am na Cheikh Niang def na ci benn témoignage nee na euh, Cheikh mooy président Lansar def na ci benn témoignage nee na nag décès Alioune bi c'est grosse perte pour la lutte mais également pour équipe Lansar ca kañ jëm mooy écurie Falaye Baldé Ama Baldé di samedi bi passé. waaw ne dafa jël fi mu toll nii ngir jàmmarloo ko a séddale lu comme ni ngeen xamee woon samedi bi prévoir woon def benn tournée. bu mu tuddee xeex corona maanaam séddale ay masque ay gel antiseptique waa Pikine waa Mbaaw ak waa Kër Massar mais nag daf ko mujj fomm lu tax mu fomm ko benn décès moo fa am ndax maire Pikine bi Abdoulaye Timbo moo perte benn frère am tax mu ajandi ko ba mercredi bii di ñëw a partir de huit heures. allah la ca mën a am lépp dina leen ko tegal soobee yàlla Modou Yacine ne chôme pas. moom mu ne eh, yaakaarul làmb kese ba tax na nekkul mbir ma nga xamante ne bii day sonné nee na yaakaaram jël ko na ko ci làmb ji ndax bu nekkul làmb ji tamit am na ci leneen lu ñu yëngu moom mbir mi nga di Modou Yacine. dëgg la eh, Mbaye Modou Yacine mbër mbir la bu nekk Fass Benno moom nag mbër mu ndaw la waaye yaakaarul làmb rek pour te pour tedd. ndax ginnaaw bu mu nekkee mbër dafa ubbi également benn service de lavage de véhicule ak moto boo xam ne nii daf ko ubbi uniquement pour euh, defar euh, toppatoo nit ñi seen oto yi ak seen kii mu leen koy raxasal pour que mu am beneen euh, source de revenu boo xam ne dina ko mën a permettre mu dund ak dundam donc kii daal moom yaakaarul làmb rek. pour dund te ñëpp war nañu roy ci moom. mu mel ne exemplaire la mbër yu bëri nañoo roy ci moom. exemple lamb dafa ñu seet leneen. exemple mba lamb wala sport rek du métier foo nga boole ci benn affaire boo xam ne nii da lay permettre nga am ci xaalis pour mën a dundal say njaboot ak sa waa famille yëpp. dëgg la Assane. Assane waaw su yaakaar naa ne li xew ci Covid bi nii war naa yee mbër yu bari ku ci toogoon di xaar lamb rek. dëgg la Ndeye Mbacke wax dëgg dina son na. Euh, mi ngi noonu ni ñu koy waxee Petit Baboy mbir nga xamante ne bii dafa dippee boppam Baboy. Hmm. ñu ne jël na tànki turandoom mu mel ni nag euh, turandoo dafa fort jël na tànki turandoom ci fit fulla ak fayda wante a bëre euh, ni ma koy waxee ñëpp ko tuddee da nga jël ci moom juróom-ñaari jikko mu mel ni jikko yooyu jël na ko ci yi dëgg la euh, Mbaye Babacar Petit Baboy mu ngi nekk écurie xam sa cosaan bu nekk ci Pikine moom nag Baboy la tuddee boppam Baboy mooy Balla Gaye numéro 2 ñëpp xam ko ci làmb ji jël na ko ni nga ko waxee ci jikko jël na ko ci fulla jël na ko ci bëre moom nag euh, suñu làmb nee na benn mbër la boo xam ne ni il est à suivre d'ici année yi di ñëw dinañ ko dégg sori dernière victoire am nag ñu ngi ko enregistré woon ci mbër mi tudd Ngoma mu ngi ko daanee woon le daal nee na victoire bi daf ko bëgg a euh, dolliwaat tollantiwaat ci saison yi ñu ñëw ku mbër moo xam ne nii mbër mu am yaakaar na te dina prouver incha allah. mbër mu jar a xel tamit ndax avenir yu làmb la. Mhm. Mbaye Babacar léegi Onde le Fou toujours sans nga xamante ne bii ba léegi moom la ñuy écrire xam sa cosaan di tedd film ba fa la ñuy des ba léegi euh, journal bi xamal nañu ne moom ba léegi euh, amagul combat. nee na nag promoteur yi ñu koy seet si ñu ngi waxaale ak moom waaye ba daal déggoo ci prix pour mu mën a tooyal li nga xam ne mooy xaftaan dëgg la euh, Baye Babacar am fu gis ngeen ko temps rek ci Leewtoo TV mu seqal ñun ak interview bu yaatu te saf xorom moom nag journal bi nee na ba léegi amagul combat ginnaaw bi mu daanee Ada Fass le 4 avril 2019 bi ne passé mi ngi am ay sollicitation nag promoteur ñu ngi koy sollicité waaye ba léegi daal ci wàllum périmé la ñu amee problème moo tax ba léegi daal amagul combat. Mhm. ñu koy ñaanal rek moom combat du yàgg dara incha allah moom ah, on <laughs> la. Cheikh Riana. Paala Diop on mooy Cheikh Riana. Cheikh waaw li ngi noonu Balla Diop moom mi nga xamante ne bii moom mooy manager Reug Reug mu mel ni eh, teeru na Reug gannaaw boo jógee États-Unis d'Amérique ak Singapour teeru na bu baax a baax ndax daf ko sagal daf ko sigil wante tamit sagal na Sénégal na Sénégal moom Reug Reug dëgg la Mbaye Babacar euh, Balla mooy manager ci wàllu lutte avec bu fii ci Sénégal moom mooy manager am ah. léegi ba Reug Reug jógee États-Unis ginnaaw avant loolu mu jógee Singapour gagné euh, Ngalani ñëw na Sénégal bu ñëwee nag Paala Diop euh, euh, teeru na ko tatagal ko remercier ko waaye également jottali ko euh, yéene ak remerciement yi Sénégalais amoon ci moom. ba léegi journal suñu làmb ci guy gi lañ jëm Ngagne Diagne guy gi ne verse pas dans la bagarre. mu mel ni suñu papa Ngagne Diagne dafa ñëw jàngat tamit li nga xamante lan la guy gi di bëree nee na guy gi nekkul mbër la nga xamante ne bii day ñëw privilège xeex mm-hmm. mbër la ma nga xam ne bu ñëwee lépp lu def mën naa commencé xeex mais lépp lu muy def dalay jéem a jàpp te dafa gëm ne moom heure bu jàppee làmb ji dafa war a jeex dëgg la mbay ngañ jaañ ñëpp xam nañ ko kenn doodu ko présenté ci làmb moom nag dafa doon def benn analyse ci combat guy gi ak Reug Reug mu fa xam ne mooy parce que guy gi dafa génn ci kii bi journal bi ne dina bastonné Reug Reug moom nag guy gi loolu peut être ay wax la rek mais gëmu ko ndax guy gi tàmmul di xeex ci combat mën na euh, boo ko boo ko provoqué wul bu dee adversaire bi provoqué wu ko moom du ñëw du njëkk xeex moom daal li mu bëgg a xam moom mooy jàpp jéem la yooyu yëkkati daaneel la nee na daal du mbërëm du dóorkat ci làmb ji. nee na tax ñu tuddee ko le roi du simpi. dëgg la kon daal guy gi dafa bëgg a signalé gauche jaar droit. loolu waxi mbër la. Euh, Mbaye Babacar loolu nekkoon li gën a fës ci bopp xibaaru làmb looy tàggatoo rek. waaw xanaa jaajëfal bu baax a yëpp yi ñu ci euh, Leewtoo TV wante jaajëfal suñu mbokk internet yi wante jaajëfal sama jigéen sama xarit Malo Sène borom Côte d'Ivoire tey bu gisee fi ma génn njàng fii fi jaar yaayu ki nga xamante ni moom mooy Tamsir ak aji maa koy kontaane bu baax a baax ma nga fële ca Côte d'Ivoire seen caali yàlla na si jàmm yàgg wante dañ koy souhaité euh, di euh, yaay boy borom jolof jolof borom jolof food euh, mi ngi noonu c'est de la part de papi c'est de la papi moo lay souhaité un joyeux anniversaire longue vie santé prospérité dina ñaanal fan wu gudd ak wér-gu-yaram yaay booy amal jàmm dig daje incha allah suba jàmm Ndeye maa ngi lay remercier comme d'habitude di remercier waa Linguère di jox dig daje internetu Leewtoo TV suba ak jàmm. di leen jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar suñu laamu jaajëfal internetu Leewtoo TV yëpp di seen commentaire et ñu leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci noonu la dañuy jaay di souhaiter un happy birthday à Yaay Boy Foot de la part de Papi ton fils ton bébé nee na mu ngi lay ñaanal nga dund loo dund rek